Toujours dans votre acte du jour de ce mercredi 21 février 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV qui bi nga xamante une vague de libération yi am na ñii di soufflé ndax Ousmane Sonko dañ ko libéré wala libéré wuñu ko kii di ministre de la justice Aïssata Tall Sall garde des Sceaux dembou bu mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi yéy na xamal ne que ñii nga xamante ni ay détenus lañu ñu daal di leen libéré maanaam kenn ci ñoom bàyyiwuñu la ay liberté provisoire la ak ay liberté conditionnelle mon mi di ministre de la justice garde des Sceaux di Aïssata Tall Sall ginnaaw bu mu génnee démb jàkkaarloog li nga taskatu briser le silence pour arboré li nga xamanteni moy vague libération bi nga xamanteni dafa jëm ci ay détenus yo xamanteni ni dañuy lié woon ci ay manifestation politique ginnaw lool daal les luñ ci mëna le xayma lu tollu ci 600 personnes ñom ci seen bop libéré nañ leen depuis le 15 février mais amul benn explication officielle bonheur nga xamanteni ki di ministre bi exprimé na ko jëmele ko ci li nga xamanteni moy motif libération yi ginnaw bi nga xamanteni dafa arboré lepp lo xamanteni dafa jëm ci possibilité sortie qui nga xamanteni moy Ousmane Sonko ak ki nga xamanteni moy Bassirou Diomaye Faye le prison limu de prison les daal moy ñi nga xamanteni du ministre de la justice du président de la république momolene Baye procureur moy demande ki nga xamanteni moy juge bi ndax mën nañu may ñii liberté provisoire wala ñu leen ko may juge bi moy xol ci fond wu dossier yi ñi mu xol ni que jàpp ne ñii damoon ji mën na leen may ñu genn leen liberté provisoire pour que en cas su leen justice soxlaa dañ leen indi kon nañ japp ni que dal ñom ñep kenn amu ci liberté définitive ku ci nekk liberté provisoire nga nekk manam yaa ngi toog ci xostu leen comme tay wala suba mën nañ la jëlat yóbbu la ci carte bi en tout cas lool la ki nga xamanteni moy mooy Aïssata Tall xamle del si nak ci li nga xamanteni moy Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye par rapport à sa libération. <laughs>